ñii di waa UCG dañoo dakkal seenub liggéey depuis aljuma gi loolee nag tax ba fii ci medina ay mbalit lañu nemmeeku ci koñ yu ne mu nekk nag loo xamante ni ña dëkk ñu ngi koy nakkalu bu baax. xam nga kii mooy source maladie déjà ñun ñu ngi ak problème mu poussière bi ci espace beeg yooyu bu ci lii ñëwee teguwaat sa day nekk vraiment un surplus euh, dangereux. dese yi moom bëri na fi trop te sonal nañu waaw il paraît que nag kii oto mbalit yi di ñëw di yow grève waa ji di liggéeyee ca UCG daal dinay indi ay leeral ci li waral boobu la grève waral mooy que dañ leen war a jox xaalis dañ leen ameel xaalis joxoon nañ leen délai le 30 le 30 bu le passé xam naa affaire mu dama ragal mujjul réglé moo tax ñoom ñu téye seen oto yi daal te grève bi ñu ñii vraiment arrangé wuñu parce que euh, booy dañuy liggéey ba dee. ba tax na ña dëkkee ca boobu boobule ñu ngi ñaan autorité yi ngir ñu jox ñi nga xamante ni ñooy agent UCG yi seen ak ak yeleef ngir ñu mën di def seen liggéey nu mu fa waree. bon ñooñu je ne les blâme parce que vraiment quand tu emploies des gens il faut quand nga utiliser leen à bon escient fay leen nit ki boo ko joxee li li mu war li mu war a am rek devoir am daf koy def. nañ leen mettre en de bonnes dispositions ah d'hygiène naa ne disposition d'hygiène de santé tout ça parce que ñoom itam bon il court de grands risque parce que malade euh, mbalit bi ñuy jël ni c'est un fourre-tout y a tout dedans. gars yi war nañu si dimbali torop su fekkente ne gars yi dañ leen fayul seen xaalis tamit. ñu fay leen ñu jële fi mbalit mi. mu nekk mbir moo xamante ni mën na indi ay loraange ci wàllum wérgu yaramu ña dëkk ba tax na ñu ngi yaakaar rekk ne dinañ ci wut saafara ci ni mu gën a gaawee.